boo xamante ni décoré nañ ko leer na nañ. cees daal daanaka xar kanam bi mu am kenn xamewu ko ko ba tax na municipalité bi génnee ay jumtuwaay am solo ngir waajal fetu fin d'année yi ay ouvrage yoo xamante ni dañ ko waroon inauguré euh, bi ci jiitu mooy jet bi jet bi naam gédo d'eau mi ngi fi woon mais dañ ko bëggoon euh, bëggoon mu gën a yànj mu mu gën a rafet nekk ci ay normes internationales beneen bi beneen ouvrage boo xamante ni amoon nañ ko muy donc benn ouvrage ay loof Thiès ndax Thiès waa li ko caractériser mooy bëgg bu mu bëgg Thiès fierté bu mu am fierté nekk Thiès. kii di Babacar Diop xamle na ne du nangu benn yoon ñuy jaay wala ñuy luwe bërëb yi nga xamante ni Thiès waay fa la ñu war a toog wala ñu ciy mën a doxantu ak seen ay njaboot. su ngeen déggee may wax chaque jour démocratiser les espaces publics man mënuma nangu ñu créer ay espaces publics privatiser leen fermer leen ku am xaalis rek mooy dugg. toute la bataille bi may mëne autour de la démocratisation des espaces publics lii ma parce que bi ñu décorer ville bi tey jii mais ku amul xaalis it nga génn ak sa njaboot soxlawuloo wuloo fay pour génn. docteur Babacar Diop nag moom profiter na ci bile occasion ngir jaajëfal entrepreneur yi nga xamante ni ñoo ko gunge woon ngir ñu mën a réaliser ji la projet. waaye tamit moo ngi xamle yeneen di réalisation ak ay projet ñoo ngi ñëw léegi léegi ci kanam.